Nous défendons la liberté d'entreprendre dans la sérénité et dans le respect. Nous montrerons le chemin de la croissance, de l'équité, de l'inclusivité. Nous apporterons le meilleur de ce que nous savons faire, qui s'ajoutera à ce que d'autres savent faire. Et dans une dynamique d'ensemble, respectueuse de nos différences, avec foi, intelligence et courage, nous forgerons un nouveau Sénégal. Vive la coalition And Bessel Sénégal. Vive le Sénégal. la République. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah mbooloo mi yaakaar na ne weddi moom gis bokk ci pour seet teeru bi ni mu xate ba tax ne mun ta teeru mbooloo mi buggoon ñëw yépp te may ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo mun te egsi Euh, di leen wu njëkk euh, di leen ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si biti ak ñi nekk seen kër yi que volonté bi ñu amoon ak bëgg-bëgg bi ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon bëggoon a fas yéene ñëw teew ak ñun ci bis bi te yàlla dogalu ko ñu leen di ñaan bu bës ba le 17 novembre ñu jóg. am jot bi yàlla may leen tàll may leen fekkee ñu dem ci urne yi sànni ñu seen carte ñu dem assemblée indi fa assemblée bu bees tabax Sénégal bu bees li ma wax léegi ci jongante yi présidentielles yi weesu dama amoon yéene bokk ci ñu def lépp pour suñuy moyen waxtaan ak suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm waane ñi fi jóge tegal ñu ay ndëgg sërëx yoo xam ne teguñ ko fenn daal di jël écarté ñu mais it ñu jàpp ne xëy na loolu la suñu borom dogal ñu gëm ko nangu dogalu borom bi far yàlla def ñu tas assemblée bi war a dëgmal ci élection yu bees mais ma bëgg a xamal mbooloo mi ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di liggéey que assemblée nationale bi buñ ko xeeb assemblée nationale bi mun naa wax ne mooy deuxième tour élection présidentielle ñu jàppee ko noonu gëmee ko noonu te fas demee noonu ñu fexe ba bu bis ba ñu jox ñu majorité à l'assemblée nationale ñu wan gaa yi ne leen mënuñu liggéey nit wax nañ ne liggéey da koy jàng waane da nga ciy am expérience maa ngi dégg ñu bëri di wax ne dañuy créer emploi dañuy def lii dañuy def laa ndaw yaa ngi chômer waane boo leen bëggee xool wala ngeen gis kuy champion ci créer emploi mi ngi nii ci seen biir taxaw loolu laa gëm te di ko bantu di ko wax saay su nekk ah, may seedeel mbooloo mi ne man ba ma amee fukki at ak benn fukki at ak benn laa wax nekk xale bu ndaw laa xalaat doon tëdd saay su ma tëddee guddi bu nit ñi di nelaw man damay toog di gént di xalaat di xalaat ci sama ëllëg fan laa bëgg a dem lan laa bëgg a doon te boobu fukki at ak benn kese laa toog ñaar ñaari waxtu di xalaat sama ëllëg nan laay def ba yegg fi ma bëgg a jëm ma mës a am benn ambition mooy ambition ban ambition nekk multi milliardaire ma wax ko nëbbuma ko loolu moom mës nekk sama mébét loolu laa mës a gëm saay su ma tëddee moom lay xalaat mu nekk sama objectif mu am lu bari lu mu laaj ay sacrifice yu dul jeex ut ay référence pour xam nan ngay def ci pour yegg ci yoon boobu ma ànd ci ak dàll ak yar ak tamit euh, gestu jàng lu borom xam-xam ba grec ba waxoon muy Socrate muy tudd ko ci grec muy ñooti Séoton loolu sunu boroom xam-xam yi sunu maam yu tedd yi sunu wasi la ki ñu yaakaar àdduna ak alaxira muy Cheikh Ahmadou Bamba wax ko ci benn bataaxal bu mu yónnee woon euh, joxoon ko Serigne Fallou Mbacké sunu Serigne ak Serigne Mamadou Moustapha xamal leen ndaw day xam boppam kàddu yooyu ba mu tàbbee sama nopp laa ko jàpp moo tax ngeen gis ma ci melokaan bu mel nii ma ànd ak yar ànd ak dal ba pare gëstu man maay kan gëstu fu ma jóge xam maay kan xam lu ma bëgg xam lu ma mën xam lu ma jom xam lu ma war a def ak lu ma war def loolu nag moo tax ba lu bari ma jombale ko sama bopp ñuy wax ñëpp ci man saa yuñ xëyee nekk si sama der bi di wax lu nekk loo xam ne dara du ci dëgg dara man képp ko ma xam xam ma ci liggéey ak jël li ma yàlla jox ko mu war sëkk ma ànd samay njaboot ànd samay mbokk ànd ak ko ñi ma yàlla booleel moo tax duma ci booleel ñàkk fayda duma kenn aussi duma ci yàpp lépp lu may def fulla ak fayda laa koy booleel ma am ambition boo xam ne moo doon li ma leen wax léegi créer emploi mais créer emploi du rek ci Sénégal ba may mébét pour jóg di liggéey di tabaxal sam bopp bëgguma woon yem ci Sénégal dama bëggoon tekki ci Sénégal mais du yem ma tekki bitim réew te loolu yàlla suñu borom defal nañu ko ba nga xamante ne tey macha allah ñi ngi employé ay sénégalais mais aussi ñi ngi employé vingt neuf différentes nationalités ñaar fukk ak juróom-ñeenti xeet yoo xam ne ñi ngi ci àdduna bi di ay tubaab di ay xeet yu bari ci Europe ci Amérique ci Asie ak ci Moyen-Orient may wax sunu mbokk jullit yi ne emploi saoudien sax Arabie saoud am naa ci ñaar ñu may xeel di ma gontal te pourtant nag Sénégal gii lañ jó jóge fii lañ bàyyeekoo fii lañ jàngee jàng bi aussi yàlla suturaal ñu defal ñu tawféex bien que ay jullit lañ bokk ci tarixa sama maam aussi jaxasoo woon ak tarixa yépp mbokkoo ak tiijaan yi ñu samay mbokki deret ma xam loolu gëm ko moo tax lu ñu def ma bokk ci dugal ci sama alal lu ñu am ma ñëw ànd ak ñoom di ko def ci tarixa yépp loolu tax li ma gëm muy li anglais di wax give back to your community bu la yàlla dimbalee ba nga tekki danga nga war a gëstu sa askan loolu ci laa nekk tey ci lay nekk suba ci lay nekk gannaaw ëllëg loolu laa gëm mooy sama ADN man képp ku may seet ci social nga may fekk ci social nga may fekk ma bëgg aussi ndaje mi ñu am muy coalition bi ñu am di ànd beesal Sénégal ñu rassembler le maximum de personne nit ñi nga xamante ne ñoom seen yitte yépp mooy def social loolu laay ñaan loolu laay woote que ñëpp fédéré ci loolu indi ñëpp ñu bokk xool ñi nga xamante ne social kese lañuy dox moo leen intéressé ñu xëcc leen ci suñu coalition ànd ak ñoom ba li ñàkk bi am Sénégal ñu dindi ko fi. li may wax nag moom mooy distribuer de la richesse maanaam loo am te yàlla séddale ko nga séddal ko sa askan. loolu ci laa nekk ba benn diir. ah nit ñi ne ma nag ah Abdoulaye Sylla fi mu toll nii réew mi jaaxle nañ jaaxle nañ te fi ñu jëm ah xamuñu ko ma jóge woon fii en deux mille vingt laa fi jóge fekk ay tolof tolof ak ay ndëgg sërëx yu nga xamante ne ñi nga ko doon tegal ci sama liggéey. ci chef d'entreprise boo xam ne tu as 2000 emplois en 2020 nga nekk première entreprise de BTP du Sénégal avec un chiffre d'affaires de 52 milliards un carnet de commandes de 350 milliards yàlla dénk la ko ngay xale nga fay doxal ay nit jóg ne lii xale bi war a ko def nañ ko faagaagal nañ nangu ay marché nañ ko toroxal ba loolu moo war ci sama bëgg jàmm ci sama bëgg Sénégal bu dal ma jël samay bagages comme man am naa feneen am naa te New York boo xam ne moom foofu kenn du ko fa fekk kenn du ma fa fekk di ko toj ndax bi ñu tojee sama kër Saly il fallait que ma génn dëkk bi ndax amoon fu ma dëkk ma obligé euh, dem New York ndax man maa fi nekk nekk ma ak sama njaboot ndax liggéey bi ma am au niveau international damay dem ci dëkk yu bari duma ma toog booy xool sax Dubaï laa gën a dëkk ndax mooy sama résidence mais sama njaboot ñu ngi New York mais loolu lépp liggéey bi moo ko waral ndax li ma doon ñaan yàlla ñaan bi moo nangu ba mënatuma toog fii at il faut may génn. bi ma génnee muy 2020 maa ngi fi ñëwaat en 2022 muy ñaari at yoo xam ne ak lu topp ñaari at yu manqué yoo xam ne sama société daanaka dañ ko buggoon a tëj euh, ñii ci ci télé laay waxee ak rajo samay nit yi may liggéeyal xam nañ ne toog nañ liggéeyuñu moo ne dama leen koo fay ba mu mot sëkk bi may dellu see li nga xamante ne moo desoon ci bor yi ndax ba salaire yi jeex bi ma ñëwee li desoon nga xam ne xaalis bi nekk fi woon dama jëlaat sama xaalis lu day ci deux milliards six cent fayaat ko ay salaire loolu loolu nag moo kooku nag bu leen waxee ne mën na créer emploi dana créer emploi ngeen war ko gëm te fii Sénégal fi ñu toll rek moom moo ñu war moo ñun ñëpp ñu taxaw takku def tout ba jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ñëpp ku ci nekk am loo def may wax ne créer emploi bu ñu ci kenn nax bu ñu kenn nax bu ñu kenn sonal bu ñu indil ay chiffres di ñu indil ay théorie di ñu indil wii mais loolu jëmul fenn man dama pragmatique gëm lu concret ku leen wax ne ci état état mën na créer emploi daleen leen di wax lu ko neex état du créer emploi secteur privé national mooy créer emploi moo tax ma fas yéene bu ñu yàlla dénkee majorité ñu fexe national fexe ba nga xamante ne li nga xamante ne moom laa jàng Chine jàng ko Singapour jàng ko Dubaï nga xam ne bi ñuy soog di jóg ñoom dañoo dooleel seen secteur privé fexe ba cinquante pour cent ci li ñuy liggéey ñu jox ko seen secteur privé national loolu moo tax tey ñu yegsi fi ñu yegsi loolu moo tax tey ñu am ay entreprise yoo xam ne dem nañ loolu nag laa bëggal Sénégal loolu laa bëggal chef d'entreprise yi nekk ci Sénégal ndax man soxoruma tolluwuma fu may nekk naan maa ngi siis nit wala maa ngi iñaane nit ndax yàlla dimbale na ma waaye nag bu ñu yàlla dimbalee man lu ma gënaloon moo yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp tawféex yàlla jox ñëpp koom-koom ndax boobu ci la réew mi di gën a neex fiscale terrible nit ñi ñi ngi fay impôt et wax nañ ñi ci tubaab trop d'impôt tue l'impôt nasaraan yi ñoo ko wax ci science la te ku dem gis ko ñu fas yéene nag suñu yàlla yóbboo assemblée ñu fexe ba impôt yi ñuy imposer chef d'entreprise yi ak jigéen ñi entrepreneurs yi entrepreneurs yi ñi nekk ci pêche bi napp bi agriculture bi ak des ak l'artisanat ak transport ak yeneeni secteur ñu fexe ba jàppale leen fexe ba ñu am accès au financement comme ni ko femmes yi bëggee bu ñu amee accès au financement ñu encadrer leen à travers l'Assemblée nationale jéem a voté ay loi yoo xam ne dana leen permettre encadrer leen ñu mën développer seeni activité ba mu mun a am koom-koom boo xam ne danañ ko mën a denc ci banque yi ndax tamit mbokk yi euh, boru Sénégal bi ma fi déggoon fan yi ñuy wax mais bor boobu waa bitim réew ñoo ñu ko lebal mais balaa mu doon neex sénégalais yi am jël seen xaalis dugal ko ci banque yi ba bu nguur gi soxlaa xaalis sénégalais yi lay leb loolu mooy réew mu bëgg a jëm ci développement donc ñu bàyyi naxaate yi bàyyi iñaan bi bàyyi teg bët bi Sénégal dafa mel ne ku nekk boo jógee yaa ngi xool au nga xool li nekk sa plat li ci nekk yow yaa ngi xool li nekk ci plat bu kële te loolu dara waralu ko dul ñàkk ñàkk googu nag mun nañ koo faj nuñ koy faje mooy ñu fexe ba sénégalais yi am accès au financement sénégalais yi di entreprendre sénégalais yi di créer seeni société di créer emploi ñoom ci seen bopp comme man mii ni ma ko defee man su ma ko defee xëy na junni ak junni ak junni junni sénégalais mun nañ ñu ko ëpp dañ leen a joxul opportunité yi rek mais bu ñu leen ko joxee ñu gëm naa ne dalañ ko def ndax man mu suma jël sama seede jox ko nit ne ko damay demande emploi te gëm naa ne sénégalais yi aussi ñi ci ñëpp loolu lañ gëm dañoo bëgg entreprendre seen bopp bëgguñu ñu leen di employé dañu bëgg yëngatul seen bopp amal seen bopp di jëfal seen bopp loolu nag laa bëgg bu ñu demee assemblée nationale ñu fexe ba loolu ñu jëmmal ko dooleel ko jox leen le pouvoir d'achat pour que ñu mën a accéder au financement jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale mag ñi ba lépp lu ñu bëgg ci réew mi yàlla dimbali ñu ñu mun ci yegg ah fi mu toll nii nag am na leneen loo xam ne dañ naan balaa nga naan naam ne fa mooy liggéey koom balaa nga koy am day fekk jàmm am day fekk jàmm am cohésion sociale bi nga xamante ne moo amoon Sénégal nga xam ne sunu maam yi sunu sunu sëriñ yu baax ñoo ko fi sampoon sunu président ancien premier président de la république du Sénégal mu ñuy wax Léopold Sédar Senghor à bâtir un état tabax une nation ba nga xamante ne ñun ñëpp dañuy demlante di dëkkalante nekk ay mbokk di kalante suñu biir loolu mi ngi bëgg a dem mi ngi bëgg a naxsaay ñu nekk ci fitna. nekk ci ay détails loo xam ne du jëmale kenn fenn loolu nag laa bëgg à partir de cette élection ñu mettre un terme à ça tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko nekk da yóbbu or oor boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne mënut a nekk mbokk yi ñu tegal ci loolu doyul ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nekk ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay règles yu la